daayira Taysirul Asir bu Montpellier nekkee ci réewum France nekk ay ingénieur ñoom dañoo soso woon benn mbaar bi nga xam ni jigéen ñi ci la ñuy mën di fi nafare wala ñu fiy féexloo buñ jàngul ci biir complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi mu doon liggéey boo xam ne liggéey nañ ko ba mu àgg ñu doon jébbale caabi yi ci samedi bi dëppoo nag le 3 septembre 2022. daanaka bi nga xamee ni si sëñ Mountakha yëkkati na liggéey bii te mbooloo mi tamit xam ni ñor gi ko sëñ bi ñor maam ñor gi nga xam ne liggéey bi ñor na ko sëñ bi ak euh, soññ yi ci def yëpp ci la mbooloo mi dajaloo kat daan ni ndax comme nañ ko daan defee rek bu njëkk daan am ay ay barkeelu indi indil sëñ bi comme ni ko numéro yu bari di defee waaye ñu xoolaat ba ba ci biir xam ni tamit maanaam war naa weesu foofu daal euh, ci la mbooloo mi xalaatee daal daal maanaam ni ko ñenn ñiy defee tamit warees na noo mën a dem jéem caa. Euh, daal ci tobbilu aw sas euh, jéem caa nab nabi rek ba nga xamante ni si luñ ca euh, man rek jéem ko caa def looloo waraloon mbooloo mi dajaloo woon ci avril 2021 yaakaar naa su ma juumul ñëwoon ci sëñ bi sàkkoo ndigal mu jox leen lépp tamit ñu àndoon koog ak sëñ maam Thierno mi ci la sëñ bi joxe woon ndigal ci nga xamante ni si nag ñu mën a jëmmal liggéey bi. te amoon ci tawféex nag sëñ bi gàttandu woon ñu ci liggéey bi boobaak léegi tamit mbooloo mi di ci góorlu seen kéem kàttan lu waaye lu waay am ak lu waay man rek euh, def ko ci ba liggéey bi àgg fii te mbooloo mi moom du lenn du mbooloo moom si day day day day day day góorgóorlu ak ak ak ak ak ak nekk ci ci ci bëggug sëñ bi ak ci liggéeyam te daanaka ci noonu rek lay fa yéene doxee ba nga xamante ni si tamit ñoom it amaan nañ ko yéene defaat ko ci lépp loo xamante ni si mi ngi doon ab liggéey bu ñu yëkkati ci ci yoon wi ñoom it ñu jëm caa taxaw na nga xamante ni si moom la ab taalibe war a taxawee ci nga xam ni moom mooy mooy bëgg-bëggu Sëñ Tuubaa. Serigne Mame Thierno Mbacke moom Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ne mooy saytu liggéeyub complexe bi yëpp sant na leen bu baax a baax ci Pastef gi nga xam ni wane nañ ko ci liggéey bi. waa daayira Taysirul Asir euh, nekk Montpellier Euh, moom it boole ay ndaw yu yu nekk foofu di liggéey euh, di ay ingénieur rek ay expert ak yu mel noonu euh, wax dëgg yàlla daayira bu nekk daanaka ci benn dëkk wala ay dëkk yu néew dajaloo liggéey lu mel nii wane na yéene ji ak pas-pas bi te loolu mën naa koo seere ndax tàmbali ba budget ba ñu leen waxoon Euh, moom it romb na ko waaye teewul amul amul benn yoon boo xam ne euh, am nañ ci benn euh, xelyaar ci dogu gi waaw toujours rek dañ may wax ne ma ni mu gën a baaxee rek dañ ko def dañ ko dañ ko defee noonu ni ko sëriñ bëggee rek dañ ko defee noonu ndax loolu mooy suñu njariñ waaw mooy suñu tawféq kon nag sëriñ bi ñu ngi lay seereel sunu sunu kent ci ñoom ci ànd bi ñu ànd ak ñoom ak kiite yi ñu am ak pas-pas bi ba liggéey liggéey bii nga xam ne moom it euh, trente million daanaka euh, mat na ko euh, muy mbaar bi nga xam ne moo jëm ci wàllu jigéen ñi ndax tey sul asir bale ci wàllu góor ñi la waaye bii mooy mbaaru mbaaru mbaarum jàngu jigéen ñi mbaar mi nga xam ne benn la ci penc yi te njagleel ko jigéen ñi waa daayira Taysiroul Assir bu Montpellier def nañ ci lu toll ci fanweeri million ci sunuy koppar jëf ju kawe ji nag sëriñ Ahmadou Badawi Mbàkke moom Cheikh Mor Fadal sant na leen ci bu baax a baax daal di leen di ñaanal. bu tedd bu sell jëmale ko ci euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolu lislaam mu mën koo def te nu ànd ko ak moom am mbégte mu rëy ci ñëw fii ci barab bi indi fii ab nuyoom akuk ñaanam akuk cantam di ko teg ci loxol sëriñ maam sëriñ maam Thierno moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir mu tegal nu ko ci loxob daayira bii nga xam ne mooy tey Taysirul Asir ba nekk ca dëkk bu ñuy wax Montpellier ca France ñu sëriñ bi yónni ñu ñu ñëw ngir sant leen gërëm leen waaye nangu itam jébbal gi ngeen koy jébbal liggéey bu am solo bii nga xam ne yéen a ngi ko doon def ci barab bu tedd bii di barab barabu cheikhul xadim di daare cheikhuna al xadim radiallahu anhu ñu di ko def ci weeru safar bu màgg wu tedd bii nga xam ne wax nañ mën nañoo wax ne xew-xew lislaam yu bari da cee xew waxoon nañ ko sànq waaye ak njàmbaar itam da cee yàgg am ndax buñ seetee xare bi njëkk a am ci lislaam ci weeru safar la woon ñu ñëw nag ci barab bii nga xam ne mooy daaray Cheikhuna na Xadim radiallahu anhu waaye ñëw ci barab bi nga xam ne dañ ko jagleel soxna yi muy ci place bii ñu taxaw ku ne xam na ne lislaam dafa fonk doomu aadama waaye ni mu fonkee góor noonu la fonk jigéen al muslimin wal muslimaat lay wax al muminin wal muminat wal qaanitin wal qaanitaat wal saadiqin wal saadiqaat wal sabirin boo ko toppee ci alquran Cheikh Mamadou Mountakha mii léeg da koy firi wax ne jigéen ñi kenn kenn ëppalewu leen dara buñ góorgóorloo rek yam ak yam ak yam jot seen cër bi leen borom bi subhanahu wa taala defal jëf ji nag ngeen jëf ko ci barab bii nga xam ne daara joo xam ne sunu borom daf ko defal sëriñ bi ba noppi nga xam ne moom daa wax ne sunu borom defal na ko waaye fu jamono toll rek daara ji day toll foofa ànd moom Cheikh Mahamadul Muntaxa bi yàlla dogalee jataayam bi mu ne moom amul benn yitte bu weesu rek sof ci fi nga xam ne fi la fekkoon waajuram ya toll ci liggéey bi rawatina nag muy daara ji nga xam ne Cheikh Abdoulaye Lahat moo ko tàmbali woon boobaak léegi def naa mat na ñeent fukki at loo tax sax ñuy wax université Baye Lahat wala daari Cheikh Lahat waaye université noonu dañ koy tekkee ne mooy daari Cheikhul Khadim boo xam ne bépp xam-xam bu am njariñ des ko fay jànge képp ku bëgg a jàng mën ngaa ñëw jàng ko fa barab bi itam doon barab boo xam ne barab bu jaayante la ci biir daara ji ndax wax nañ ko sànq fii nga xam ne moom lañ moo nekk sunu ndeyjoor dafa bokk ci fi nga xam ne waa taliatul muridiya ñu leen tudde ay opérateur économique ñoo ko fi def muy juróom benn bâtiment yii waaye euh, restaurant bi ñu jàkkaar lool ki ko fi def jigéen la te fii mbaar mii ngeen doon def itam moom itam tout tànk yu jigéen yi lañ ko jagleel bâtiment bee ngeen di gis moom itam bâtiment boo xam ne tout tànk yu jigéen yi la ñoom lañ ko jagleel kon lii kon dafay symboliser waat lu bëree bari waaye yéen ñi koy def nag ngeen bàyyi ko ci réew moo xam ne ñi nga xam ne ñoo waraloon sëriñ bi defi liggéeyam bu màgg bii mooy waa France waaye boobu ñoom dañ doon dimbale sëriñ bi ci ab liggéeyam buñ ko dee xool nag ci xalaatub doomu aadama day diis lool ci noonu waaye loolu mëntoon a ñàkk booba law alima ser serra ma fi la ma ma waaw bu fekkoon xam nañ ne li may tax a jóg lii moo ci juddoo xëy na kon duñ ma yóbbu waaye boobu mënuñu ko woon ñàkk yóbbu ndax la taxoon mu dem sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaa wa an akoona xaadiman li qawmi wa an akoona shaafian wa an akoona shafian li xaw mi wa an akoona xaadiman fii daw mi wa an akoona shafian li xaw mi kon loolu moo taxoon sëriñ bi jóg kon ci weeru màggal bi ngeen ñëw jébbal fi sëriñ bi liggéey bu toll nii loolu sëriñ bi mi ngi sant bu baax a baax waa Taysiroul Assir bu Montpellier loolu itam di firndeel ne li nga xam ne waajur yi ak mag ñi defoon nañ ko ci yéen alhamdulilahi rabbil alamin sàmm ngeen ko ndax réew yooy kat rawatina réew moomee réew mu jaxasoo la mu bari yu la waaye ngeen dem fa xam ne li leen fa yëkkati mooy ñiy jàng di jàng xam-xam bu am njariñ ngir indi ko jariñoo ko fii ña fay liggéey di sàkk lu lew luñ mën a dundale seenu njaboot man koo terloo terlu ca waaye liggéeyal ci yàlla ci toolu Cheikhul Khadim bii ngeen jëf-jëf ju rëy ji kon loolu jëf ju rëy rëy rëy la ju am solo la waaye nag loolu itam ñu ngi ñaan sunu borom lawal ko ci njaboot gi ndax yéen kat alhamdulilahi rabbil alamin foofa sori na ni ma ko waxe sànq doy na waaye la ngeen fa yóbboon muy seen diine di seen aada di seen cosaan di seen baax uh, baaxi maam yu baax yi ngeen jële woon fii rawatina nag seenug taalibe gi ngeen fi nampe woon yéen a ngi koy dund foofa kon loolu yàlla leen si yàlla ba gën a jàppalal waaye nag gën caa jàppandal ndaw ñu juddoo foofa bañ mën a roy seen tànk ba ëllëg ñu mën a jàpp ci liggéey bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha daa wax ne nañ ko taw bu mu laal suuf waaye jàng ma moom ña ca toll nañ jàng bu baax a baax a baax ni ñu ko waxee woon sànq ndax loolu mooy ndigalul sëriñ bi mooy njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy doxinu doxinu doxinu yoon bi kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci jëf jure ji di leen ñaan suñu borom nangul ko boppam ci barkeb sëriñ bi te fay leen ci ngeen ji fay ni ma ko waxee woon sànq sëriñ Tuubaa suñu borom da ko nangul kon ku tàbbal sa jëf ci biir sëriñ bi na la wóor ne suñu borom nangul na la ndax yërmande sunu borom ak mbaaxam ëppante naag mu naan waaw dellu ne déet te nangul na sëriñ bi ba noppi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan man gi yokku kàttan gi yokku ba yéene yépp mën a yegg képp ko xam ne dugaloon na ci ab dërëm it na ko wóor ne yàllaa tax mu def ko te yàlla buy fay nam toll lay fayee kon yàlla na yàlla fay ngeen ji fay ci barkeb Cheikhul Khadim ñoom waa Taysirul Asir bu Montpellier ginnaaw jébbaleeg liggéey bi ànd nañoo ak sëriñ bi dem ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou di xalifa général des Mourides jébbal ko seen addiya mu ñaanal leen waaye sant leen bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci complexe bi